jërë ngeen jëf di rafetlu ànd bi Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo daleen ak jàmm ci seeni xibaar ñu koy dooree rek ak wopp ba coronavirus te ci àllarba bi rek ci 1380 tests yi ñu jot a réalisé 250 ñoo ci jot a positif ci 250 yooyu am na ci 76 cas contact 174 cas communautaire ak 10 décès ñu dem fële ca rond point cité des eaux après xew nag moo fa am ab benn xale bu góor bu am fanweeri at ak juróom jàpp ñeent fukki at rek moo fa piqué crise daal di faatu ci saasi saasi lii nag mi ngi am ci ligne 67 mini bus yooyu noonu bus bi mi ngi jógee woon Wakaam rek di dem ca cité des eaux ci noonu nag bi malaise bi amee ñii di enquêteurs yi daal di nañu dugg ci bis bi def test Covid 19 daal di désinfecté rek li nga xam ne moo di bus bi fi ñuy wax nag kii ngi fële ca hôpital Aristide la Dantec ngir rek ñu woyal li nga xam ne moo di euh, test yi ci noonu nag bi ñu sukkandikoo rek ci enquêteurs yi bi ñu jëlee pochette am dañ cee fekk li nga xam ne moo di somme euh, mille francs ak euh, carte d'identité am ci rek lañ sukkandiku ngir xam rek waa ji ni tudd ak fa mu jógee. jël woto rek dem ba gànjaaña yeewoo ci boobule gox nag ab tiis la ñu fanaanoo ndaxte benn bus rek moo fa daal di mbëkkanteeg woto bu ndaw ci noonu nag ki doon dawal oto bu ndaw ba daal di ci ñàkk bakkanam ci saa si ne nekkoon ci oto ba nag daal di ci amee ay gaañu gaañu yu métti ba fi ñuy waxee ak yéen ñi ñu ngi fële ca hôpital bu uh, Kaolack ña yeewoo ci boobule gox tamit daal di jóg rek ngir wax ak jëwriñ yi nga xam ne nag ñoo boobu boobule gox ngir rek ñu wutal leen ay doodaan ndax lii di accident yi nag dafa bari lool mustapha Cissé Lo daal dina rek dànkaafooti ñi nga xam ne rek ñoo yor ay ndombal tànk fii ci suñuy réew di dénoncer li nga xam ne moo di injustice bi rek ñuy dund fii nii ndax mënta nangu rek ab DG wala député di dawal oto bu toll ci téeméeri million ak rek dëkk ci kër goo xam ne rek dina toll ci benn milliard ci noonu rek kii di Moustapha Cissé Lo di ñaan rek ngir ñu xoolaat seen doxalin na ni ñu téye réew mi ndax naga askan wi sonn nañ lool ba tey rek ñuy àddu ci wàllum politique fan yi ñu weesu nag aw coow amoon fële ca dem dikk ci diggante maître Moussa Diop actuel directeur bi di Omar Boun Khattab kii di actuel directeur bi nag xam le woon ne dafa am ay salariés yoo xam ne maître Moussa maître Moussa Diop daleen doon fay te liggéey wuñ ci Dakar dem dikk waaye rek kii di maître Moussa Diop tamit dal dina indi ay leeral rek xam le ne ci fan yi ñu weesu kii di Boun Khatab daal dina fay rek salarie yooyu mu doon wax ne rek liggéeyuñu foofu kon nag kii di moo maître Moussa Diop daal dina jàpp ne rek actuel directeur bi daf ko bëggoon a taqal rek waaye la doon wax dara amu ñu dem seeti journal parisien ñu àddu rek ci mbirum jaari Sow moom nag ab nit koo xam ne da koo jege lool rek moo daal di wax ci boobule journal xam le ne kii di Diary Sow mu ci jàmm nañ ko may tuuti rek mu nooyi ndaxte nag wax ji dafa bëri lool ci moom loolu nag nekk benn pression boo xam ne rek dafa nekk ci moom. kooku tamit di nit kooku jege ko daal dina xam ne rek kii di jaari Sow dina génn ci fan yu néew rek daal di wax ak ñii di askan wi. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi safoo Equivox TV di leen jox dig daje rek suba ak jàmm incha allah.